c'était à refaire est-ce que di ko choisir nekk le frère de Macky Sall. oui. <laughs> et pourquoi. Euh, d'abord macha allah euh, ku mu doon jàng la. de sorte que euh, man bi may jàng toujours dama doon euh, xool li muy def ma koy jéem a def mm, parce que il était un élève brillant nekk scientifique. ensuite ci wàllu taxawaayam au plan social mu nekk ku doon jàppale famille bi. même bi mu nekkee étudiant am bourse rek euh, ba pare au plan politique nag mu def ay prouesse parce que wax dëgg yàlla képp kuy politique war nga ko fan ci ñetti at nga def opposition liggéey liggéey bu mu liggéey ñëw jël pouvoir bi mais plus que ça en douze ans mu def ci Sénégal li mu fi def ku amul fierté nekk rakk kooku bokk ak moom ndey bàyyi c'est que am na lu la manqué et pour toujours il sera mon leader politique euh, en tout cas tant que il est il est actif au plan politique man je serai derrière lui merci beaucoup